Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. asalaamaaleykum mbokk sénégalais yi nuyu naa leen di leen siyaar ngeen partagé képp koo xam ne bëgg nga réew mi am yërmande rek ngeen partagé ngeen partagé bu baax gis ngeen tur yi ñi ngi toll ci. trente personnes yoo xamante ni si jàpp nañ leen xam nga ñun moom dañuy xeex dañuy cooki xeex bi nuy xeex nag maanaam danoo xeexalul kenn Sénégal dañuy xeexal lépp lu jàpp ni li jaaduwut rek danañ ca wax lépp lu jàpp ni normalu tamit danañ ca wax Issa dafa am wax ju am solo ju mu wax démb ba muy waxal Ndongo Diop di leen ñaan ngir yàlla lillaahi wa rasuuli ngeen bàyyi Ndongo Diop doomu jàmbur ji ngeen bàyyi Ousmane Tounkara ngir yàlla ñaata yoon xam nga ñun xamuñoo wan yoon la ñuy jaar waaye nit ki maanaam war ngay war ngay yëg ci sa mbokk man même bu sax même boo leen bokkul sax dëkk mais ci doomu aadama nga yëg ci doomu aadama lu metti di ko dal yow lu metti loolu yow nga koy yëg ci sa yaram quoi ci nit ci doomu aadama nga gis nit ku sonn nga naan ndeysaan kii yàlla na nekk si jàmm ak ku mënta doon nag waxuma sax même bu doonul sax sénégalais même bu doonul sax africain mu doon européen wala mu doon américain nit doomu aadama da war a am yërmande ci nit loolu dafa am solo nga gis nit di dund lu metti nga koy yëg wala man loolu laay dund wax dëgg fa yàlla moo tax kon dëgg la waruñu mën a tollale waaye nag waaye nag war na ni bokk tamit di di di di maanaam di yëgee noonu doomu aadama daal dëgg la dayok usmaan Sonko tollul ak dayok Ndongo Diop ci Sénégal donte même buñ bokkee gëm-gëm bokk benn combat bokk benn xadar bo Ndongo même bu ko rawoon ci Sénégal sax waaye Sonko fi mu toll ci Sénégal niñ koy mën a xeexalee nekkul noonu la ñuy xeexalee benn Ndongo Diop loolu dëgg la nangu nañ ko quoi ndéggat bu ci euh, euh, Issa def démb mu doon live am solo di wax ci Ndongo Diop loolu lu am solo mais nag tamit maanaam dañ leen war a jox ak doyo war leen jox ak yitte bu fekkee dégg ngeen ma ndax li koy wax ci ñii rek laa koy delloo man damaa jàppoon ni ci ñi des ci ñu ñu téye maanaam ñan ñoo ci des mooy Ndongo Diop ak Ousmane Tounkara ñaar ñooñu laa jàppoon mais sama gars yi doomu aadama doomu aadama la nit nit la nit ku jóg di xeex ngir réew di xeex ngir jàmmi réewam ñu jàpp ko dañ ko war a soutenir moo tax kon lii damay laaj. di ko laaj fan lan fan ñun sénégalais yi fan lan toll ci kii ci ñi nga xam jàpp na leen am na koo xam ne mi ngi tudd Mbaye Thiam Mbaye Thiam bokk na si ñuy jàpp man xawma kuy Mbaye Thiam waaye Mbaye Thiam moomu war nañ ko xeexal am na ku jàpp ku tudd Moussa Gueye am na ku jàpp ku tudd Cheikh Soumaré am na ku jàpp ku tudd Aslo am na ku nu jàpp ku tudd Cheikh Gueye Fallou Goudiaby Saliou Cissokho Mass jaw xaadim Ndong Basirou Ka Sidi Diène Malick Wilane Basirou Khoule Souleymane Ba xaadim Ndiaye sama gars yi ngeen partagé ko bu baax seize bi kan euh, kii waa mañaa mañaa ay dara seegu jenn soogu jénn si fàllu ja galas jéy moodu jenn nonga njaay mustafa juuf fàllu géy ibrahima kayta demba demba jéeju babacar ñaa abou bakar no abdourahman diallo Mouhamad Mané Mouhamadou Bakiri Ndong Jamanka mi ngi nii ñii leen jàpp ngeen xool mbokk sénégalais trente personnes trent nit ñu jàpp leen ne leen ràpp ci kaso bi lan jàppee Ndongo Diop rek affaire bi moom xamuñu lum demee wala daal mais leen jàppee gone yi comme leen wax démb rek. maanaam ku yedd faga balaa ngaa yedd faga daanoo da ngay yedd faga fakastaloo nanu bàyyi doomu jàmbur yi tëj di leen xoqatal di leen tiital ci lu dul benn dëgg dafa jot ñu libéré ñii dafa jot sénégalais yi wax ak ñii dox ci ay jéego pour ñu libéré doomu jàmbur yi ñii tëjuñu pour tëj lin ñu waxoon démb dinañ ci dellu tëjuñu pour tëj ne danoo tëj pour sérieux danoo tëj pour nit dafa def lu jaaru yoon ñu tëj ko danoo tëj pour tëju xoqatal ak jaay doole dama ni la bu du bu fekkoon ni dañuy tëj rek ñi sàcc ay xaalis yu baree bari ci réew mi diw sàngam sàcc na tàng tant de milliards ki sàcc na tant de ñu bàyyi leen ñuy dox ci dëkk bi di guutandaay di def lu leen neex kon tëjuñu kon dañuy tëj pour dañooy tëj ay sàcc dañuy tëj ay jaaykatu dorog dañuy tëj loo xam ne pour tëj rek waaye lii tëjug jaay doole ak xoqatal jàpp doomu jàmbur di toroxal nañu bàyyi doomu jàmbur yi léegi man li may laaj mooy léegi comme waa Pastef tamit ak ñoom Sonko ñooñu nan lan ci taxawoo sama gaay yi dëgg la yàlla bëgg ñun faruñu fenn fu dul ci dëgg dëgg la yàlla bëgg doomu jàmbur yi damay laaj man xaw ma comprendre ma yaakaar naa nag ñu ngi ci ay yitte yaakaar naa ñu ngi ci ay jéego waaye ba tey soññu baax na ci bu fekkee tamit nekkul lu nu def it kon defuñu yoon bu fekkee lu ñuy def kon alhamdulilah ñu gën cee góor góorgóorlu ci doomu jàmbur yi buñ saraxee doomu jàmbur yi doomu jàmbur yi ñu jàpp ay nit leen comme ñëpp fii Sénégal ñëpp yem bu jàppee ay nit tëj leen li tax ñu tëj leen ñoom ñëpp ci ginnaaw Ousmane Sonko lan topp ci affaire Adji saar gi lan topp maanaam du dëgg du yoon li ñuy xeex doon dëgg jàpp Ousmane Sonko bëgg ko sosal dama ni la jar na jar na tay la sa bakkan jar na lu nekk lan ko bëggoon def xeex ba noonu la waaye léegi nag après combat bi léegi lan lan wax ci ñi ci ñi ma lim nii dégguma kenn ku ko lim tay tay tay laa ko jot xalaatuma woon pour defaat live waaye tay tay tay laa ko jot ba ma ko jotee ma ne lii du ma moom lii dinaa ñëw ma wax ko ma xeexal leen bis bu nekk fii démb toog naa fii ba may wax ci ndongo Diop loolu la damaa toog ba mu yàgg ma ne man nekkul ñëpp laay déglu wala may déglu saa su ne laay fi ma ne est ce que ndongo Diop ñu ngi koy laay fal est ce que gars yi ñu ngi wax ci moom est ce que Ousmane man ñaata yoon laay wax su ma waxee mënu wax ba pare tudduma ci Ousmane Tounkara wala ndongo Diop démb looloo tax ma defal jóg pour xeexal ko ñun lu nu am suñu kàddu rek leen am amuñu leneen lun mën xamuñu fu koy jaare kii sama waa ji xaaral yow fii ku fi nekkati di saaga wala di def ay affaire nit ñi nekk ci ay fulla ngay kii dañ lay sëq sànni fële sama waa ji yéen amaloo leen benn njariñ Sénégal billaahi ay nit ñu ñàkk jom ngeen quoi nit ñi dañuy nekk ci ay nekk ci lu am fulla ngeen di nekk di saaga ay duul rek ak ma ñëw sëq la sànni fale booy saaga nga dem saaga ji feneen wala ngay naan ay duul yéen amoo benn fulla nit ñi nekk fii di wax lu am fayda billaahi wallaahi yéen a yées yéen a bon comprendre ngeen maanaam noonu la demee maanaam bu ñuy xeex nañu xeexal ñëpp sama gars yi lii dafa sérieux ku ci nekk na nga xool xam ngeen dafa am solo nit doomu aadama ngay xool maanaam yow sa ndey nga koy xoole comme ndeyu keneen sa doom nga koy xoolee comme doomu keneen sa bopp nga koy xoolee ñu bokk lu ñuy yëgandoo am lu ñuy metteendoo ñuy ànd di xàccandoo di dóorandoo mais ñi nga xam ne toog xeex ay jàmbaar dëgg di xeex ngir Sénégal donte juum nañ ci kàddu ak lu mu mënta doon ñu jàpp doomu jàmbaar yi tëj leen ne leen ràpp ci kaso bi te kaso yi Sénégal Ousmane Tounkara bee moo leen ne ndax Ousmane Tounkara mi ngi ci kaso ba mu nekk mi ngi wax yéen ak yéen téléphone seen kaso yooyu dañuy lekk lu baax dañuy naan lu baax bokkut ak kaso bi ñu tëj Ndongo Diop wallaahi du benn seen kaso senegal yooyu kaso yooyu ku fa jóg ak xet gu bon ak ñàkk lekk gu bon ak nit lay kii ñii respecté wuñ doomu aadama ku respecté wuñ ñi ci biti xaw ma ña ca kaso ba nan ngay mel si ñoom seen mbedd yi gis ngeen ni mel mbedd yi baaxut tabaxalu leen dara hôpital sa sax baaxut hôpital fa nit war a sowewoo baaxut kon seen kaso ya nan la war a mel dégg ngeen li nit ñi di wax ci kaso ñii kaso kaso Sénégal du kaso rayaati kaso seen seen kaso yooyu affaire u jaam la esclave comme bu njëkk ñi ngay jëlee ni takk ko jaam seen kaso yooyu la fa nekk du kaso yu baax bokkul ak kaso Europe yi wala kaso États-Unis kaso Italie yi dong yamut kaso fii kaso itali dong gën na laa la wax ñoo xam ne sax ñu ngi seen kër sax di dund ak di lekk di naan xool leen ni leen Europe lawee ak ak ay États-Unis yooyu du benn fii da ñii dinaan am lu ñuy entraîné di lekk di naan li nga tëdd ci kaso ba ñu lay fay xaalis léeg-léeg nit génn ca kaso génn ak xaalis weex tàll ngay football am heure yooyu génn mën a jàng mën a def lépp mais seen kaso yooyu du kaso ay pour rey nit la seen kaso yooyu baaxut kaso yoo xamante ni sii respecté wun doomu aadama ñi fa dugg ñëpp dégg ngeen leen wax ci kaso yi ni mel ñii mérito wuñ kaso yi leen dugal mérito wuñ tam ñu fay yàgg nii seen kaso yi du kaso yu baax mais xalaat leen ku ci nekk na nga xool xalaat mbir mi sa comme sa doom na nga xalaat mbir mi comme sa bopp nanu sérieux nanu wax nanu xeex ngir yàlla nanu xeex xeex bu ànd ak sérieux quoi ndax nit ku baax bëgg réewam jóg di xeexal réewam ba lii fekk ko ci mais wax dëgg fa yàlla taxawu leen ko taxawu leen ko Sonko taxawul ñi xaw ma yaa ngi taxawu yaakaar naa yaa ngi ci ndax as góor nga mais gën leen ci taxawu quoi ba pare tam ñii tam na leen xam trente personnes trente personnes trente personnes boobu fii ku fi am yaay keneen am na yaay ku fi am rakk keneen am na rakk ku ci nekk sa waay li li li lay metti nga koy yëg maanaam ni mu lay mettee noonu lay mettee keneen nan sóoraale loolu doomu jàmbur yi ñu tëj ñi tëju ñu leen ci dëgg leer na naññi affaire bi nu war a lijjanti mooy affaire aji saar bii moom lan war a lijjanti yërmande gaa yi yërmande billaahi dafa am solo ci doomu aadama wallahi tallaahi yërmande dafa am yërmande bokk na ci lu ci sens ci valeur boo xam ne doomu aadama boo ko amee jàppal ni pertoo dara ci sa àdduna barki alxuraan karim yéene nekk la borom a cay fanaan sama gaa yi re sellal leen xol yi rafetal leen xol barki alxuraanu karim képp ku yéene jaam ñi jàmm képp ku yéene mindee fi jàmm mu doon siddiqan ci sa xalb barki alquranu karim billahi lazi la ilaha illa yal yàlla na nga dee taxulaa dee te di nga am ndam sama gars yi comme te xeexu yërmande la yërmande gi na gën a dawaay dawal leen yërmande dawal leen yërmande ci ñun tëj ci kaso yi seen kaso yi baaxul lii du kaso kaso yooyu rayaate la ñi fa dem ñëpp wax ne leen Guy Marius Sagna wax ne leen Abdou Karim wax ne leen ko keneen keneen wax ne leen ku dem ci kaso yi li muy njëkk a kaso yi lan fay def nit baaxul mais ñi ñu tëj ci kaso yi mérité wuñ ko mérito wuñ tamit ñu yàgg nii ci kaso yi ñu toog bëgg leen fàtte nañ leen xeexal waxuñu comme ci jaay maa tey ne def leen continuer tëj mais nañ ci def su bay ci suñu tànk suñ leen bàyyee bàyyi nañ leen suñ leen bàyyiwu tamit ñu bàyyi ci suñu tànk jox ci xar ci tànk tubay dëgg-dëgg ne ñii seetaanu leen ñi ngi seen ginnaaw soutenir leen ñi nga xam ni tamit maanaam jàpp nañ leen ci liste bii ngeen jàpp seen tur ñoom dañuy manqué lekk ca kaso yo ngeen di dajale moonin comme te ñun Sénégal yi la doon xeexal dërëm dërëm xeebuñu dara ku ci nekk ni ngeen di taxawee nongo Diop di ko taxawoo keneen kenn ngeen taxawoo ko ñooñ tamit di leen yóbbu lekk di ku nekk di cotiser pour même buñ fa nekkee ñu xool di leen soutenir buñ bàyyi doomu jàmbur yi saraxe leen ba yërmande dafa am solo ko yërëm nit ñi yàlla yërëm leen ñii ay ñii danoo iñaan ay xolu sadit lan yor yàlla borom bi subhanahu wa taala billaahi dinañu àtteeg ñii yërmande dafa am solo xeex bii bu dee xeexu yërmandeel di ngeen am ndam xeex bii bu dee xeexu yërmandeel seen bopp ngeen xeexal billaahi wallahi xeex bi képp ku koy xeex ngir comme li tax ngeen jóg ay saay-saay ñoo nekk suñu réew mi mu dëggu mu nekk loo xam ne lu am la ay sàcc maanaam pétrole ba lépp askan wi di dund ci ay tolof tolof ngeen xeex ngir yërëm noonu ngir nit nan am jàmm ba nga dugg ci kasa sa kasa boobu kasa jàmm lay nekk kasab salaam lay doon ndax di nga ci nekk mais après yàlla dina la aj na dëggu rek loolu moo am solo waaye sama gars yi de xeexu de ku koy ku képp ku koy xeex da nga am ndam dama ne la liggéey ni xeex pour ay pikiir buñ ko jam nit incha allah yàlla dana leen musal ci pikiir bi yow ma koy yow ma koy xeex yéen ñiy xeex ngir nit ñi. liggéey am jàmm incha allah ma ne leen concours ki mu jéeree mooy gañe Macky Sall wallahi tallaahi yéen ñun ñooy mujj di socc di leen seen di leen ree dama ne la concours ree ki mujjee ree moo gañe waaye yéen ñun ñee leen yi mu ree yéen ndax li ngeen di def ni lu yées la lu bon la jàpp doomu jàmbur yi tëj ne ràpp ci kaso bi njëkkate yoo ay 30 personnes lan jàpp man maa ngi jàpp ni nongo Diop rek a ci des ak ak ak ak ak ak ak ak kii kii kii ñu bëgg ko sosal mais lii jaaduwut ñun tamit nan ci taxaw nan ci taxaw nan jàppee nit ñi comme nan jàppee nit comme suñ bopp kuy xeexal réew mi xeex ba sonn ak ku mu mënta doon ak lu mu ñàkk-ñàkk daraja ak luñ ko ñàkk xam ñàkk xam ñi xam ni ñi yëg ni am na kun ku tudd diw siiwal leen ko ngeen dimbali ko ngeen di dajale weccet yéen sénégalais gor yi buñ leen gën a gore ñi nga xam ne ñoo leen nekkal ci naaj bi ngeen nekkal leen ci ker gi ngeen fexe di dajale moonin di jël ay añ di jël ay lekk ngeen taxawu leen ndax yéen a leen dugal ci kaso ba sàcc ñu ñu dugal leen ci kaso ba jaay ñu yàmbaa ñu dugal leen ci kaso ba rayu nit ñu dugal leen kaso doon xeex ngir seen réew di xeex ngir drapeau Sénégal di xeex ngir jàmm di xeexal Sonko te xeexalee Sonko du jëmmi Sonko ñi ngi xeex pour Sénégal gu am jàmm ñooñu dem ba xeexal leen kon sénégalais yi na ngeen gore ba ñooñu bu leen fàtte ñu nekk ci kaso ba ñi nga xam ne yéen lañ doon xeexal ba ne leen ràpp ci kaso ba te li leen jàppee ci kaso ba xam ngeen ni du dëgg kon boog na nanu yamale ñëpp sama gaay sama gars yi noonu sérieux nañu yamale ñëpp nañuy jox nit ñi tamit courage dañuy jox nit ñi courage waxuma pour na metti dama ni la Macky bu la neexee nga ñëw rey bu la neexee nga fekk ñu nga dóor ñu bal pestale ci bopp ñu dee waaye ñun ñi ko seq ñun nan wane ni ñee fàttewul leen dooleen ñu gën a gore dinañ leen taxaw di leen soutenir sama gars yi nay weccet yi daw na xaalis yi di daw ngeen bind li su ñooñu ngeen xam ñu ñu jàpp ñëpp ngeen fexe ba seen lekk bu muy manqué seen dund bu muy manqué utal leen ay avocat fexe ñoom ñëpp ñu génn ci Macky Sall li ngay def yàlla na këpp ci sa kaw lépp loo xam ne yaa ngi ko def doomu jàmbur yi billaahi yàlla ñu ngi koy ñaan yàlla borom bi subhaanahu wa taala yàlla na këpp ci sa kaw allahuma anta adudi wa anta nasiri bi ka axuulu wa bi ka asuulu wa bi ka doo dara Macky doo dara wallaahi sa qoqalaate yii wallaahi sa sa sa sa dina jeex tey jii tey maa ngi gis loo xam ne sa ay ree sax daf maa jàpp maa ngi gis loom ay ree sa sa xaw ma mitin nga doon def xaw ma sa kaar ya amul ay nit maanaam kenn topp la ñëpp bàyyi nan la sa kaar yooyu damay nii sénégalais fu ñu joxee ay kaar yéen da ngeen am ay problème crédit pour téléphone fu nu wootee di joxe xaalis 1000 francs mille bu leen xeeb dem leen ngeen jëli 2000 yi 1000 francs yi xam na du mu xew ngeen jënd ko ay crédit ngeen dem ca mitin ba ngeen jënd ko ay crédit puis di dugg ci whatsapp beeg youtube bi di xam li xew ci Sénégal ngeen di ci. laay fi ngeen bokk ci ñi nga xam ne di xool ci YouTube bi ndax internet bi mi ngi defar lu am solo képp kun ci jox xaalis wala ñu woo wooteeg meeting bu dee da am problème crédit demal jëlal bu dee 5000 la 10 000 sa 10 lan sàcc jox la ko ndax da ngay manqué crédit di am problème connexion jënd leen ko ngeen def ko ay crédit ngeen jàppale ñu sax ci combat bi ngeen def kay ay connexion bu daara sedd lu leen jox jël leen ay ñaari nit ak ñetti xam nañ ni seen ndaxaate yooyu jeex na kun ci jox moo ni laa la wax. dama ni la bul ko seral bu fekkee defoo dara am nga jot ma ni la jëlal boo jëlee ba pare <laughs> ba dem foofu sax léeg sax nga ñëw sax def ci sax benn live maa ngi nii dañ maa fay 1000 francs lañ ma fay 2000 francs ma ñëw fii jënd naa ci crédit yéen bokk sénégalais yi loolu sax yaa ngi jàppale combat bi pour nit ñi xam ne ñii dañuy naxaate wan ni leen gëmoo leen gëmoo leen def leen seen combat yooyu na ci bokk dem ca kii ba ñu fay la kala fay ngeen kenn taxaw fële filmer kala fay ka yëkkati 1000 francs ngi ne ah man de dan maa fay 1000 francs pour ma dem mitin sàngam waaye ñi ngi ne ci mitin bi nag jënd nañ ci crédit nag crédit bi ñu ci jënd nag maanaam ñi ngi ñëw pour xool YouTube bi xool Facebook bi xool lu ci xew xool lu kii ñi ngi nii dañ ñoo fay loolu rek maanaam bokk na ci li nga xam ne pour gën a jàpp ci combat bi ñëpp nañ ci jàpp sama mbokk sénégalais ànd xàccandoo dóorandoo dama ni leen booloo mooy doole wallahi wal azim bu booloo sunu booloo bi ak liñ tàmbale nii Macky mënul cent francs ñun tubaab mënul saafaraas ñun doomu jàmbur yi lépp lu leen dal incha allah ni nu bendoon yi billaay dina ko kotaseer barki alquranu karim Macky Sall dina la kotaseer gis ngeen fi nu jàpp ni fii la dama ni leen gis ngeen détermination xombalan bi nu am ni dama ni leen nañ ko gën a am amul lu nuy ragal amul lu nuy tiit Macky jàppal ko la neex tëjal ku la neex mais sama gaay ma ne leen mbuumu jaam gi xoolal li fi am nii tubaab bi takkuñu ñu jaam loolu moo fiy jeex sama gars yi der bu ñuul dafa jot ñu respecté ko sama gars yi dafa jot mbuumuk jaam gi dog tubaab bi gënuñu ñu dara dama ni leen seen 4 avril boobu maa ngi dégg mburum làmb yi yéen boo leen xamoon ni leen guuxalee ay golo piir dañoo yéen naan ay sunu sunu sunu 4 avril la ñuy la ñuy feetewu mooy l'indépendance xawma la l'indépendance yéen ñu jàpp leen nax leen ñu nax seeni maam golo yi deey ak seen biir yi nga ndeeg seen lexi duufi jàpp seen maam takk seen maam ñëw di leen nax ne goreel nañ leen te ay feni kase la tubaab goreelu leen ngeen mën a toog tey naan da ngeen koy feete dama ne leen seen feet yooyu yëpp dina jeex seen 4 avril bii bis la boo xam ne dina dem ba nga xam ne Sénégal comme bisub dëj seen monument yooyu ay Faidherbe ak seen tur yooyu barki alxuraan dina fa deñ ma ni leen ay feder bi dinañ ko tudd ay rii Cheikh Amadou rii Alaaji Malick ay rii keneen waaye ay rii feder dina fa deñ Sénégal ñàkk fayda gi ngeen ñu ñàkkal fayda ci tubaab gii tubaab bi takk ñu jaam ñu nekk ay jaamu tubaab ba tey barki alxuraan ka Macky Sall ñu dañuy gore yow doo ñu téye ñun yeewu rek sama waay mu wóor na ne tubaab moo la nga yeewu mu wóor la ne jaam la nga ñëw fii sama waay nga gis tubaab nga gis benn Stefano nga gis benn Marco nga xam ne kii gënu la gënu la ndey gënu la bàyyi ëpp la dijiti ngeen bëgg a ñëw di ñu tayle ci ay Macron Macky Sall barki alquranu karim danan gore barki al billahi lazi la ilaha illa wallahi africain di nan gore wallahi danoo dépassé danoo dépassé Sénégal nga xam ko détermination bi ñu yor yow ñoo ëpp fit sa ndey ak sa baay pour nga xam ko Macky Sall yow amoo fit yow tàppet nga mboqat yow li tax yow nga am fit toog di def nii yow ab tapet nga armée bi nekk sa ginnaaw ñoo la jay te armée bi ñun ñoo leen fi teg te ndaw ñi dama leen nañu ànd xool leen déglu naa waa Fuuta di expliquer waa Fuuta li ñuy expliqué noonu di wax seen nax yi leen nax ñu ngi fay bëgg a dugal affaire ay kii ak yooyu mooy ci affaire xaw ma waa maatam xaw ma fekk ñoom naan immigré ñoo leen kii maanaam ñëpp dem nañ ba xam ne yéen a ngi bëgg tàqale askan wi mais Macky Sall li nga bëgg du fi am muus du fi naanee ñeex bul jàpp ni jàpp nga 30 gone barki alquraan karim bul jàpp ni am nga ndam wala wàññi nga gone yi wala tiital nga gone yi Macky Sall wallahi wal azim dinañ la jël duute mbaay la wàcce la ginnaaw pale dina ñëw yow 2024 soreetul élection yi barki alquranu karim gone yi nee nañ tekk toog nañ mais billahi wallahi day jaar yoon Macky Sall wallahi élection yi dafay jaar yoon Macky Sall wallahi gone yi du ànd ak yow duñ la wooteel te wàcc ndax li nga fi def xaw ma kan waaye yow da ngay wàcc ci far foos doole mbaam sa bis moo ñëwagut toogal pale foofu di kii di nax sa bopp maanaam toog di gëriyee gëriyee nga jàpp ne jàmbaar nga wallahi ndax nga sa bopp yow da bew da ngaa bew da ngaa ëppal dama ni la yow dinañ la ruux sa ngan ngandole gi ngay def jàpp nit ñi dañ la ragal jàpp nga Ousmane Tounkara ji nga ko terrorisme fii kenn du fi tër terrorisme laa baadoola yi yëfi jaam yëfi xaj yëfi golo yi yéen a ko fi def yéen a fi rey fukki gone ak juróom bàyyi leen doomu jàmbur yi ngeen jàpp tëj ko affaire Adji Sarr moo fi indi lii lépp ay sàcc nekk ci dëkk bi sàcc ay millions et millions tëjuloo ngir da ngaa tëj Macky Sall da ngay tëj ngir jaay doole Macky Sall da ngay tëj ngir yées da ngaa bëggoon a tëj nit Ousmane Sonko ne li nga koy tëjee mooy da koy tëj ngir kat moom opposant la boo xam ne daf bëgg a jëlee système bi yow nga doon doomu tubaab nga ne kii da koy tëj da nga koy sàkkal pexe ndaw ñu ne la loolu du fi am. lii mooy sababu nga nga nga bëggoon tëj Ousmane Sonko te sa tëj yi ngay tëj tëjuloo ngir defar réew mi. tëjuloo ngi bu doon dangay tëj di nga tëj jaaykatu doro gi di nga tëj ñi sàcc ay milliards di nga tëj luuxum yi nekk ci réew mi waaye dangaa tëj ngir jaayum doole tëju baadoo la féttirlu waaye yàlla moo la ëpp doole yow xam nga ni doo defar katu réew Macky jeexal nga Macky jeex Macky faalewun la billaahi wallaahi faalewun la ragalun la toppatoon la te kañ nga ko doon xam jëlal nit nga rendi ko xatit xam nga rey nga juróom-ñeenti gone xam nga juróom gone ak ñeenti dee nañ fukki gone ak yooyu dee ay nit mën a am courage mën a wax xam nga fi mu toll nii yaa ngi nii euh, menace nga ñi nekk ci bitim réew yow jàpp nga Ousmane Tounkara yow yaa ko indi say fexe teg ko naan ay terrorisme naan yow yow yéen ay ba ay baadoo lay mel ni yéen naan ay terrorisme yéen da ngeen a am xol ci doomu aadama ay xale yi dee ay nit ku daggun dagg loxoom ngeen jëlee ko hôpital mën ko yóbbu ca kaso ba jàpp doomu jàmbur seen kaso yi bon yooyu tëj fa ay nit ci kii ban yërmande ngeen am. mais gis nga li nga def noonu yaa ngi nii jàpp Ousmane Tounkara yaa ngi nii kii keneen teewut tey leen gën a mën a wax te la jege woon ruux la la jege woon ruux la seen dama barki Macky Sall Macky Sall yamal Macky Sall yamal da ngaa juum de billaay da ngaa juum tubaab yi li tax ñuy wax affaire raciste aka ñu koo xam gis nga tubaab yi affaire raciste boo ko tuddee rek ab tubaab joteeg yow nga naka sa waay affaire raciste mu wax la affaire raciste rek day tiit. ndax dañoo xam li ci raciste ñun nag affaire racisme la ñuy xeex ñun dañoo xeex ñun der bu ñuul xeex boobu moo gën a bon ci xeex nag nga xam ko Macky Sall pour nga xam loolu xam nga nit ki maanaam nga xeeb ko nga xeeb deram nga xeeb waasoom ba tax na sax yéen ngeen ciy dugal affaire waaso kon comprendre ngeen ñun ak tubaab nag affair waaso la ndax tubaab yi ñoom dañ ñoo nawloowut ñun nit ku ñuul nawloowuñ ñun africain nawloowuñ xeex bii xeexum waaso la nga xam ko waaso bi ngay wax nag affaire di compté bi nga bëgg régal Sénégal ñun France lañ ko amal ñun France xeexu boddi compté la nii xeex ak France France daf ñoo yàpp France daf ñoo tuutal France daf ñoo xeeb ñëw suñu dëkk di ñu jaay doole ne ñun nit ku ñuul duñ dara ñun sénégalais duñ dara moo ñu moom dund dunduk raciste ak ñun ñun nag contre racisme la nii xeex xeexuk der la kon yow boo ñuy jege ñu lay tulli wa rabbil kaaba dangaa xamut Macky Sall da nga dof Macky Sall tubaab bi ñoo la gën a xam li xew adduna bi li xew dama leen xeexul racisme ñun la ñuy xeex maa ñëw waaso yi nga xam ni Macky Sall yaa ngi ko dugal bëgg a dugal Sénégal loolu am na de ñun France lañ ko amal du ay sénégalais nekkul ab tukulóor ak séeréer ñoom ñooy diggante ay waaso ñun suñu waaso xeex bi dafa original dëgg la dafa am muy affaire raciste mooy daw ci àdduna bi France body compté la ñun suñu digganteeg France ndax France moo ñëw fekk suñu pétrole di ko jël jël suñu zircon bëccëgu ndar kàmb xeeb ñu di ko jël France moo ñëw dem jogay di leen bàyyi ñuy naan ay ndox mu ndox xonk ñuy jël zircon bi di ko yóbbu xeexu body compté dëgg la waaye France lañ ko amal ci ñoo ñu bëgg a jaxase suñu réew kon xeex bii Macky Sall daf laa dépassé nga xam loolu xeexu der bu ñuul la jamonoy Kunta moo jeex lii xeex bii xeexu bañkat la boo xamoon li nii xeex xeex bu bon la tubaab bi ñoo la ko gën a xam tubaab foo waxee affaire raciste ñu naan la loolu baaxul affaire boddi konté dañ koo ragal ñun nag dañuy boddi konté ak France ñu nag France xeexu raciste la def ñoo yab bu fekkee xeexu ethnique ay kii boddi konté ñun nag France la France France pourquoi mu dugg suñu dëkk takk ñu jaam nii pourquoi bëgg a taal suñu dëkk pourquoi jël suñu alal di ko yóbbu comme nii pourquoi France takk ñu jaam pourquoi France ñëw di ñu nax 4 avril seen feetu golo yi dee yooyu taxaw naan leen ay may nañ leen l'indépendance te du dëgg di ñu foowee di ñu këll-këllee ba jamono ji ñun ñu màgg ñun danoo raciste ñun ak France ndax France moo jiital si ñun raciste ndax yabu daf ñoo yab respecté wul suñu der respecté wul suñu askan respecté wul suñu couleur léegi nag nit ñi jóg di xeex loolu ngir xeexum waaso ngir xeexum kunta kinte yow Macky Sall nga mën a jàpp ñooñu ne leen ràpp ci kasa bi nga mën a jàpp Ousmane Sonko sosal ko nga mën a jàpp fanweeri gone tëj leen ci kasa bi sa xeex bi daf laa dépassé de Macky boo xamoon lu nekk ci xeexu xeexu nit ki dee moo ko gënal maanaam mu dund foofu la toll moo tax loolu ngeen bëgg a dugal ci réew mi loolu nag lu am la véro loolu dafa am dëgg la mais ñu nag France la France daf ñoo yab ñun duñu jaamu kenn ma ne la juddu doon jaam rek daf ñoo métti gis ngeen kañ ngeen doon Macky kañ nga doon xam dëggantaan ñun bu mën na noq ndeyu France kañ ngay xam dëggantaan mën na noq ndayu Macron ak bakkanam bàkki noq ko ba mu duul takk ko xam nga kañ ko doon xam Macky Sall xeex bi doon xeex ko yat ak yat xeex bi doon ab tubaab ay négro la ñu jël indil ñu ko ay macc do ay jaam ay golo yu mel ni yow jël leen teg leen ay tubaab yu ñuul kukk maanaam ngeen ñëw toog ci suñ biir dëkk loolu mooy problème bi mais gis nga lii bu doon ab xonk nopp ab maanaam tubaab lii amoon bu njëkk moo am ñëw seene pakate yóbbu jaam barki alxuraan karim man de personnellement ak ñiy xeex wa rabbil kaaba damay bokk si ñu ñaan kii buur la ci demmelee laay bokk wallaahi mee du ma dem wallaahi mee du ma dem gone yi nag ni ma mel ni noonu laa mel noonu la keneen mel gone yi foofu lañ toll mais yow boo kii woon yow yaay bokk ci ñuy maral taat buur comme ni nga koy defee nii di maral taat Macron jaay saw askan jaay sa diine jël sa drapeau Sénégal dem ba ci Macron sëgg xam nga jël drapeau bi dugal sa poos xeeb sa askan xeeb ñu ñàkk fayda gis jigéenu tubaab mel ni ku koy sujootal ñàkk fayda ñun sunu xeex bi daf laa yow boo xamoon ni la jéppee ci li ngay tuutal sunu der ma ay lekk xaalis de xoolal sunu pétrole bii ñun Macky Sall fi mu ñu toll da ngaa xamut sunu pétrole bi ñu jël ko ñun ñu moom ko am nekk asgor xoola ñu tuur ko ñun baax na ñu jël ko de waxuma la jël suñu pétrole ba pare ñu jël ko taal ko kos almet taal ko perte pétrole moo ñu gënal nit ñëw di foqati sa alal jàpp la jàpp jàmm ana kañ ngeen yi nekk ay gor yéen yiitu africain yi ak seen taati rëy ak seen biir rëy toog seen canapé yi di duul rek ana kañ ngeen am fulla kañ ngeen am fayda ngir mën a goreel der bu ñuul ak seen askan ak Afrique Macky li ñuy xeex daf la dépassé dama ne la Macron bu nekkoon suñu kanam yu noq ko barki alquranul karim bu doon xeexu yat ak yat fàq tubaab ñëw taxaw ñu def nii giyew tubaab ba na taxaw nii africain taxaw ñu noq leen ba takk leen ci suuf te fa leen jëm ak ñoom buñ ñu bawut ñun dañoo bëgg a gore xeex bii daf laa dépassé ñun ay xeexu gor la ñuy wax waaye ay jaami mel ni yéen seen biiru riba yooyu naan ay bëriga pétrole ba seen biiri fees dell maanaam nit ñi loolu lañ mënta digérer man day xawma kan man personnellement wallahi tallahi maanaam yeewu nekku jaam gi daf ma déranger man ma waxuma sax ay moom pétrole baak zircon ban sàcc mais man takk la jaam jamonoy kuntaa kintee mooy loolu sama maam kaacaaroy nga nax ko fowee ma ba jamono ji man ma ñëw mën a continuer waat nekk jaam am na yoon wàcc suuf si moo ko gën mag ñi sax xeex sunu xeex bii dafa dépassé ay Sénégal ñun africain lañ bëggatul ñu tuutal ko ñun li mbëtt bëgg moom la bar bëgg ñun fi nu teg seen bët daf laa dépassé daf leen dépassé yéen paa yi nekk ci système bi yëpp nag laa leen wax cat ba cat bàyyiwul kenn ñun gone yi fi nu teg suñ bët ñun danoo teg suñ bët ñun Afrique ñu siggi ñun Afrique ñu teg ñu fenn fu nu bëgg a dem ñu dem fa ku ñu respecté ñu respecté la ku ñu respecté wul doo ñu respecté ku ñu ne benn ñu ne la fukk ku ñu ne fukk ñu ne la fukk ak juróom ñun foofu lañ toll africain am nañ ay ndaw am nañ ay gone macha allah sunu der dëgër na am nañ ay richesse sunu matière première ñu ngi koy jëlee fii lépp la ñu am gone yi nag ñoo yeewu nag ay gone tubaab tamit di juddu ñoom it ñun du nangu seen maam ni noté woon seeni maam tey ñu ñëw tey suñuy morom dañu ko not ñun dañuy xeex pour suñuy doom suba incha allah pour sama doom man man tubaab bi ni muy respecté ni doomam bi juddoo tey war a gérer réewam war a liggéey ci réew sama doom bii di ñëw mu ëpp xam-xam tubaab bi jàng xam-xam moo tax gis ngeen ñàkkal seen bopp fayda moo tax tey ngeen di ñaan di am ay doomu mbër làmb ñàkkal seen dopp fayda moo tax chaque jour yéen a ngi manipuler askan wi nañu nelaw bu seen doomi jàng ñun danoo bëgg président boo xam ne dina jàngal gone yi ñu jàng xam na lay defaree arme ñu jàng xam nan lañuy gasee pétrole ñu jàng xam nan la ñuy defaree ab moto mais Sénégal dëkk boo xam ne maanaam xam-xam ba ñu am ci technologie wala dara mooy toroto sénégalais velo sax mënuñu ko defar ndax du question danoo ñàkk jom de njiiti bon France moo leen ko teg bëggul ngeen am xam-xam chaque jour daf leen bëgg a suufeloo ay ay raciste bëgg yéen yéen nit ku ñuul daal bu leen tekki dara ba tax na ñu tij nag seen xel tënk leen ne leen doo leen jàng école li leen jàngal ay théorie rek wax jàngal làkk france ku làkk france làkk france bu jublu làkk français daa yor réew làkk jàngal làkk français mën a naxe loolu la ñu France ñëw bàyyil fii li ñu ñàkk mën lépp France moo ñu ko teg unicap bi dal Afrique bi dal Sénégal France la du question amoo leen maande du fekk du question boo leen xalaatoon mënoo leen defar méthode mais ñi ngi leen bàyyi fii ba léegi nga xam ne Sénégal li ngeen gën a jàmbaaree mooy toroto lenn kese velo sax mënoo leen ko defar ab toroto yéen a ñu ko teg ak njiiti bon yi ak xaj yu dee yu mel ni yow ñoo fi a toog maanaam kii ñu ay toroto léegi toroto amul moteur yaa koy pousse temps booy da gis kenn dem stade foot sa waay toroto bi ñu lay pousse yére mu lekk si yére yi ci ginnaaw dem sa yaay di la door loolu ngeen mën amut leneen loo xam ne mën nañ ko keroog maa ngi gis nu koo xam ni macha allah jàmbaar la waaye ay ree daf maa jàpp technologie fu mu toll benn sénégalais daal di jël benn ay moteur jëlaat fii benn kii loo xam kere wu ci dara jël kii defar comme tol tôlier xam nga mën nga former benn genre di ko dawal ne foog ni jàmbaar la. dañ leen di nax defoo fi dara macha allah nag di kii nga mais du dara loolu nga def noonu du dara defar avion sax fi ñu toll nii sax du dara mais carrière oto na lay def ba muy ba ndox di ci kii ñun sénégalais yi yàlla nañ ko njëkk a kii ay oto na lay def ba waaye jant bi dong da kay taal muy daw foofu lañ tollu te xam-xam boobu dama leen xel bu doon jaay lamb wallaahi mi ngi ci yéen wallaahi am ngeen gone yoo xam ni bu ngeen leen tàggatee ci xam-xam dinañ def lu raw américains yi duñ def. loolu ngeen gëm ko ak gëm-gëm la xel benn la dama ni leen gone gu ndaw bu am juróom-ñaari at boppam li ci nekk moo raw ordinateur bi gën a foor ci àdduna bi xale bu ndaw laa leen wax moo tax ngeen mën a gis xale bu ndaw mokkal alquraanu karim wala xale bu ndaw moo mën a mokkal loolu xel bu doon jaay lamb xel yi leen utiliser wut mais xel ci loo ko utiliser mu dem mais sunu xel yi dañ ko nag am njiiti bon ñoo xam si boo ñëwee li lay jàngal ci école ba wax moo tax lan ngeen mën a am te wax bi ñu lay jàngal wax bi gën ci waxi mooy mën a la fen moo tax léegi li lay jàngal ab journaliste boo kiiwee da ngay nekk ab journaliste bu mën a fen mën a fen dem ci télé yi dem ci kii ñu jël la plateau yi nga nekk fa di fen ku dàq kàcc rek yaa gën a aay sa journal moo gën a mën a jar doo waxal nit ñi chaque jour ci nelawu askan wi ci loolu ngay dundee journaliste ba dañ lay jënd pour ngay nelawal askan wi boo naree yee askan wi ñu ne la kaa ñu fay la ngay wax lu liiral askan wi nga ànd ak ñun xam ngeen ni bëggoo leen dëkk bi baaxoo leen bu ngeen jógee fa ut avocat bu mel ni maître El Hadj Diouf bu ngeen fa jógee ut benn capitaine yi mel ni seen zaaru capitaine yi ca armée ba ka fay nekk ka war a gën a nekk jiite armée ba ka ca war a gën a nekk jàmbaar kooko dañ koy jënd li ñu koy jàngal mooy naxe manipuler askan wi bu dara amee ñu ñëw yor seen yat tiital askan wi yónni soldat yi ña nekk ci suuf moom chaque jour moom dañ leen nelawal ñuy dee ñoo ka gën a sonn kala dàq liggéey kooko la gën a lii ngeen ñu jàngal ay feneki ki ki wax ma ne leen ay wax ay dialogue dafa yorut réew réew xam-xam moo ko yor di créer di defar di jàng ay technologie mais fenn rek demal nekk journaliste kàccikat avocat kàccikat maanaam boo nekkee impôt domaine tappalekat ah seen yëpp yi ngeen ko teg gëm leen ay baxaaba na maanaam foo leen nekk rek yéen jàppoo leen ni xam-xam moo leen fa teg boo demee ca pale ba sax ay ngandam doom ba xaq pettaaw nga fay gis béjoonu nag yow ab président yow boo yor réew ni nga koy yoree du ay pettaaw ak ay sangoo ak ay kii xam-xam mooy yor réew di indi ay idée lii rek ngeen ñu gëmloo boo demee ca téyër ba noonu téyër ba fi mu toll nii ñaw jàpp ni ay créer yi ngeen ñu gëmloo yëpp dof yi ngeen ñu gëmloo yi yëpp ci pexem tubaab la ngeen xam ko nag ab téyër du jàpp ni moom maanaam dem créer modèle dagg comme ni ko tubaab bi di defee xam nga jël place bi sawaay nga def ko ordine ko mu doon place bu rafet teg say mannequin yooyu gëmuñu yooyu de li ñu gëm fi ñu toll téer ba bopp machine ba lay teg ngandam téere ngandam xaaw bu paree wis ay kii ay ndox ci buntu atelier bi euh, bisimilah jam ji fi jafa jafa jëx rek kii nii nekk ni yaay dañuy ñëw tey nga dee de te loolu li nga war a def yow yow téer mooy créer ut say modèle xam ni ay gàllaaj nekkul mooy doxal liggéey liggéey li koy doxal xam-xam la boo demee bureaucrate ba ka fa nekk yaakaarut pour liggéeyam ak honestam loolu moo koy dimbali pour léegi maanaam pour dëkk bi dem waaye ma ngi fa takk ngandam gàllaaj dese baak ñëpp foo dem ca siège baak ndomba ba yoo xam ne ku fa toog sax dof ba sax dañuy def sax ñoom dañ fay toog ndax gàllaaj mooy leen fa téye te kenn warul kii seen place ndax fii la ñuy dundee fii la ñuy teddee nekkul liggéey moo leen fi teg wala xam-xam waaye li leen fi teg mooy maanaam naxaate ak kàcc léegi nag seen ngàndami gàllaaj la ñuy takk ci siis ba ku fa toog ba remplacer leen sax ñaari fan nga fay toog dee ndax soxlawuñ xam-xam ba ay liggéey baak maanaam kii dëkk ba na dox ak yooyu il foog que ñu changer sunu mentalité yi suñu njiit yi suñu système bi pa bi ak paa yi ak ñoom Macky Sall ak ñoom ñu jël leen sànni leen fële ñu yàq mu naqari te wallaahi mën naa nekk mën naa nekk de benn loolu lu koy kii ragal du jam guy ragal du jam guy benn fit mooy pee fit dafa am solo tàppet ci ay gaaf la bokk ku sa ndey jur doomu tàppet kooku sa ndey daa yara dal wallaahi tàppet baaxut tàppet moo lay teree def yu bëree bëri ragal baaxut ragal ba ci alal sax pour nga def mën a dugg ci benn business maanaam ragal ak yenn calcul yu bari naan itam ma def lii sa waay su ma jëndee mboq fii wala créer sama benn tool affaire yooyu tam kaay bi seey maanaam ragal dina tax doo mën a am dara mais xoolal ki mën a ñeme risque am fit ne waaye naa ko ci dugal dara tool bi dina mën a kii affaire yooyu loolu mën nga ko def saa nga jàll. lem buñ ko bëggee lem ragal du am lem lem boo ko bëggee saa il faut que ay yamb màtt la te lem dafa neex. mais il faut nga dem foofa yamb yi di la màtt nga mën a lekk lem lem ba di la faj nga ciy jariñoo waaye ku ragal lem mm, yamb màtt la doo am lem Macky Sall ñun pare nan pour yamb màttuñu pare nan pour jiit fettuñu pare nan pour mbaam lekk ñu pare nan pour ngeen daggatañu barki alxuraan kam ñun lem lañ bëgg li tubaab bi bëgg lañ bëgg mooy lan danoo bëgg a gore Macky Macky suñu xeex bi yéen seen danoo doyal ci système bi ñun danoo doyal ci tubaab loolu nga xam ko yow bu dee comprendre leen lu xew li xew Macky mooy ñun dañoo doyal ci tubaab loolu looloo xew pas comme ay njiit bi ci mi ngi fii wàññi na mboq wàññi na dugub wàññi na ñun dañoo dépassé loolu ñun tubaab lanu doyal sëkk ci moom France dégage foofu lañ toll nga xam ko salaamaaleykum wa rahmatullah Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.